engagement nga ne. dama ne. Mhm. tey dañoo ñëw. waaw. ñëw nag ci ndigal lañ am. Mhm. ndigalu kan soxna baal yi soxna Baali moo yónnee fii ci man fii. Mhm. dama ne leen léegi délégation bii. kii toog mooy Serigne Jili Pës. Serigne Jili ngi nii. moom boo gisee muy dem rek bu laajte. dëgg la. Cheikh Muntaxa la ak soxna Baali Muntaxa. ci seen mission ca lay dox demul fenn. dëgg la sëñ Morlo mii. sëñ Morlo. di nit ku baax di koo xamante ni li ma wax njiit mi léegi laa lay wax ci moom saa boo ko gisee Ndakaaru ak feneen doxul ci dara lu dul ndigal. dëgg la moo koy yëkkati. dëgg la xam nga ne fi ñu ñëw sori na waaye ndigal la ñu fi indi. la waaye sëñ Mamoun Lo na. sëñ suñu jëwriñ. dëgg la gi ñun ñun gone yi. Mm-hmm. sëñ Lamine Seck. mooy sama buntu ci sëñ. waaw ci ci ci si soxna si soxna. mooy sa buntu di sama buntu ci soxna ndax kat sëñ Mamoun Lo kat xam kenn da nga ko xamee moom. soxna Baali Muntaxa ginnaaw sëriñam sëñ xaarim loo sekk mii mu sëñ Saliou sama mbokk taaliba na ma ñu bokk sëñ Saliou ñëw moom tamit délégation bi ci la bokk dëgg la délégation bi ñëw nag dama ne la foo leen gis moo xam guddi moo xam bëccëg bu am leen looy lam-laami xam ku leen yónni soxna si soxna bàyyi mu taxaa ci ndigalam la ñuy xëy ndigalam la ñuy kont dëgg la soxna si nag nee na ni nga ko def moo tax mu jàpp la dëgg la nag kat moom demul fenn ma nga toog daaru minnam toog poroxaan liggéeyal sëñ Tuubaa ak maam jaaram maamam ak seen muntaxaa dem fenn waaye dara bu ko ci réew mi ngay nag taalibeem ndax ginnaaw boo yaakaaree raxam bu baax ji say am sa mbàkke moom sëñ sooyul nga jël ko def ko sa def ko mu sa bàjjan nga sa yaay nga def ko mu sa sëriñ soxna baali du yaay sëriñ la dëgg la ndax sëriñ sooyu bu mooy mooy bàyyam sëriñ sooyu bu bàyyam mm. ak ma yaana borom téere bi dëgg baali maa bëgg xam ne soxna Bali du yaay du bàjjen soxna Bali sëriñ la. dëgg la de sëñ sooy bu la. ndax bu doon maamam sëñ Touba kenn du kenn du kenn. dama ne. Uh-huh. soxna Bali yaay la soxna Bali sëriñ la waaye nag soxna Bali sax dépassé na bàjjen dépassé na yaay soxna Bali suñu sëriñ la ndax sëriñ sooy bu la bàyyam tudd sëriñ sooy bu bàyyam sëñ tubaa ku jur. te bu doon nag sëñ Touba dama ci géej kon lu bari dina lëj kon coow li dégg biir yëpp du am amut bi dara du am. dëgg la nag soxna Bali mënut a xaaral nee na mi ngi lay sant mi lay gërëm. soxna Bally nag am na loo xam ne nag bëggul sax ñu koy wone waaye waaye waaye li ma gis sànq bu dalee sa kaw nga xam ne soxna Bally dal sa kaw. ci gàncax gi baax gi nekk Daaru baax Poroxaan baax Touba. génn jigéen eh, dong la mu soxna Bally Mbaxar. kon nag ñu ngi ñaan buuse doom ji so soxna si nee na mi ngi ko ñaanal mu am ndey te am baay. yàlla na yàlla na dund ba doon murid sadiq mm. kon nag sañ Mamoune Lo mii suñu jëwri la ñuy bàyyi kaddu gi bu ñu noppee seen jil pëpp ñaan ñu daal di yeewu ndax kat ku ne xam na ne euh, sëñ Mor Lo ñuus daa fu muy dem te te naa ko faaw nga dal te moom kilifa la moo ñu bëgg te soxna soxna Bally na nga xam ne buuse bëgg na ci yow te mi lépp moom nag yu bari du xool sax waaye nit ñi ñoo koy wax moom xoolul ay seen ak xoolul ay Facebook xoolul dara na nga toog daal di mën ma nga toog poroxaan sa zaar koy wax rek sa zaar moom xool dara <laughs> man léeg-léeg mu ne na ko ah soxna si nangam nangam nangam dégg mu ne ma ah, am na moom xool dara xoolul facebook xoolul télé saram dala ma nga ci course ga ma ci jàmm yàlla ak poroxaan kooku nag suñu yaay ak poroxaan poroxaan ak ah. poroxaan loolu ci la nekk nag soxna bàyyi dox ko sëñ du mu yeggal sëñ Mamoun ngi nii moom moom sama xarit la moom moom da di sama bunt ci soxna si. mu doon ku baax ko wax ku yaatal nag. ku yaatal nag mi ngi nii ku yaatal. fu mu rëy eh, waay ablo ablo bi bu baax di la sant. ndeysaan. engagement. waaw di kenn ci njabootu soxna Bally yi mm-hmm. ndax Serigne ko joxoon. Mm-hmm. yow it ngay taalibe Sëriñ Amsatu Mbàkke moom suñu ñu fekk fi Modou Fall mii di taalibe mmh. son mmh. si yónni ñu ànd ak sëñ Jiili Mbàkke ak sëñ Mor Lo mmh. ñu ànd ak sëñ Lamine Seck ñu jaar ci moom ndax ni nga demee moom am nañ demee ci soxna si li mu moom li mu wax rek matal na lépp soxna Bally moom pas-pas la la jàppee pas-pas gi mooy Sëriñ Amsatu Mbàkke ndax day rakkam li xaritam bi léppam lépp lu soxna Bally ne sëñ Hamza nga ca biir waaye lépp lu sëñ Hamza na it soxna a nga ca wàññi kon bi nu bokkee sëñ soñ bu mm-hmm. danoo doonaat ay xarit mm-hmm. ba lépp ba àdduna bépp xam ko mm-hmm. dafa naan diggante soxna Bale ak sëñ Hamza moom weesu na sax fu ñu koy waxtaanee waaw danoo danoo màgg rek fekk leen mu mel nu mel kon boo bokkee njaboot